asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur sa sant di leen na ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois gars yi aujourd'hui on va parler d'une femme soumise à son mooy maanaam ndax jigéen war na mën a tarbiwu góoram avantage la si moom du avantage si moom moom la ñuy jéem a waxtaane tey indi li nga xam moom moo di des points il faut savoir que ñun dañu am benn culture toujours man damay partir si li nga xam moom moo di suñuy culture suñuy culture mooy jigéen dafa war a tarbiwu jëkkëram jigéen dafa war a soumise si jëkkëram moom maanaam dafa war a nekk une femme soumise jigéen buy dégg ndigal jigéen buy jox këdd li nga xam ni moom moo di góor si côté góor yi définition bu ñu leen mënti jox rek wala rôle bu ñu leen mën a jox wala droit bu ñu leen ci jox rek dañuy abuser parce que nit bu demee ba abuser sax ça veut xamul lan mooy li nga xam ne moom moo di vraie définition la vraie définition de soumise mooy jox autorité supérieure kooku noonu mais am nit ki bu la supérieur nga jox ko autorité tey jii ni say parent respect bi nga leen di jox boo ñëwee sukkal sa papa da nga soumise devant ton père. bu fekkee góor nga bu fekkee bu fekkee jigéen nga bu fekkee góor nga boo ñëwee sujootal sa papa wala nga sujootal nit le fait que nga sujootal nit keneen mooy da nga soumis à travers cette personne. ñu dem si li nga xam moom moo di cadre liggéey tey ci nii boo amee benn boss le fait que koy woowee boss ça veut pas dire que kooku moo la ëpp expérience wala moom moo la gën a intelligent wala moom moo la whatever c'est parce que respect nga ko jox signe de respect la nga dem li nga xam moom moo di imam ngay dem di julli jàkk ñun ñii képp ko julli jàkk tu es soumis par rapport ak li nga xam moom mooy di imaam mooy da nga wàcce sa bopp si li nga xam ne moo di imaam bi ça ni moo la gën a xam alxuraan mën na la bañ gën xam alxuraan mais cër ko jox mooy maanaam euh, titre bi la tey benn jigéen bu bu wàccee boppam jox góor titre góor mooy maanaam ki nga xam moom mooy diriger kër gi ki nga xam ni moom moo yor wàllum kër gi ki nga xam ni moom mooy jël décision yi c'est parce que femme bi la neex te femme yi bu ñuy def loolu en général ça dépend ban nit la ñu am devant quoi mooy maanaam ban góor la ñu gënal parce que jigéen en général pour mu mën a nekk une femme soumise il faut mu respecter la il faut mu bëgg la maanaam il faut nga jaral ko ko choix am la même bu fekkee si on par religion jigéen bi dafa war a def choix boobu noonu mooy maanaam obligation la pour mu def choix boobu noonu mais toujours aussi tamit religion bi da tegal li nga xam moom moo di benn poñ boo xam ni. góor bi warul profitoo si loolu religion boo mënti gis muy Coran bi muy li nga xam moom moo di Bible bi mais surtout aussi tamit li nga xam moom moo di côté culture malheureusement nag aussi tamit si côté jigéen yi dafa ñi nga xam moom la ñu woowee les féministes extrêmes man j'ai pas de problème avec les féministes j'aimerais toujours ah rappeler ça parce que man kenn gënuma féministe mais j'aime pas les les extrêmes mooy ñi nga xam ne ay extrémistes lañ dafa mel ni li nga xam moom moo di wàllum religion y a des extrémistes nit ñoo xam ni lii la point barre mais maanaam t'as pas choix amoo amoo libre de choix amul liberté de choix amoo liberté et c'est dommage ça pas que ni tey jii nii si une femme est soumise à toi mooy maanaam noppi la war a def tëj gémminam du wax non si biir kër gi femme bi dafa am rôle bu am importance moom laa doon wax keroog si benn vidéo précédente bi nga xam moom laa def mooy maanaam jigéen am na droit wax li nga xam ni moom moo di opinion am vous discutez vous trouvez la meilleure solution tey jii ni man soumission la laa ko jàppee mooy genre thérapie parce que te jii nii relation bu baaxee rek la majeure partie jigéen bi moo ko baaxal parce que góor amul li nga xam ni moom moo di matuwaay pour diriger seulement maanaam joxe la fait que nag amul li nga xam ne moom moo di beaucoup de matuwaay comme jigéen bi mu nekkee multitasking mën togg mën fóot mën wëreeva lépp lépp góor lenn rek la am muy li nga xam ne moom moo di ndogal diriger te jigéen nag pour mu mën a am benn genre vie vie bu saine en couple si kër loolu lay jox li nga xam ne moom moo di góor bi c'est comme si daf koy permettre mu nekk góor un homme na peut pas être homme avec un grand H sans une femme parce que tey jii nii boo xoolee li nga xam ni moom moo di célibataire bi sax pour mu mën a nekk responsable c'est pour dimbali sa mère ma maanaam il faut pour aider sa mère jàppale yaayam moo tax muy dawale yenn responsabilité kon toujours y a une femme de même que li nga xam ne góor boo xam ne dafa marié pour mu responsable il faut mu am li nga xam ne moo di une présence d'une femme malheureusement l'Afrique n'est pas l'Europe l'Afrique n'est pas l'Amérique l'Afrique n'est ku nekk dafa am ni ngay dundee li nga xam ne moom moo di euh, soumission fii Europe jigéen pour mu soumettre rek il faut mu nekk benn affaire boo xam ne il faut mu benn rapport sexuel loo ko wax da koy def parce que en ce moment là il y un intérêt tey jii nii beaucoup de femmes pour ñu mën a nangu la li nga xam ni moom moo di sa kilifteef il faut nga xaalis parce que yaa ngi koy dundal y a beaucoup de choses yoo xam ni ki nga xam ni moom moo di Margaret Thatcher mooy mooy première femme bi nga xam ni nekk na li nga xam moom moo di premier ministre Royaume-Uni nekkoon na benn femme d'affaires benn femme boo xam ne day diriger benn femme boo xam ne am na autorité bu génnee di liggéey day joxe li nga xam ni moom moo di ay ordre ay góor di diriger toute une nation comme la reine Elisabeth mais bu njëkkee li nga xam ne moom moo di seen kër mooy maanaam sur euh, mooy côté foyer yi elles sont des femmes Margaret Thatcher moom moo doon toggal jëkkër ji day dem liggéey wàcc toggal jëkkër ji. parce que nanguwul jëkkëram laal li nga xam ni moom moo di euh, kin exemple kon ça veut dire que ni ñuy bàyyi di tëkkale li nga xam ni moom moo di féminisme ak soumission parce que c'est c'est deux choses différentes une femme peut être soumise à son mari mais aussi tamit nekk une grande féministe parce que féministe quand on parle de féminisme c'est pour li nga xam ni moom moo di liberté bi nga xam jigéen moom la war a am ak droit yi nga xam moom la war a am hors foyer bi à part foyer bi bu génnee mën a dem liggéey war a toog si bureau bu góor toogee si bureau mën a yor entreprise bu góor yoree entreprise mën a diriger mën a def lu nekk loolu droit boobu noonu mën a voter en fait loolu moo nekkoon li nga xam moom moo di droit des femmes tey jii nii bu ñu abusé si guerre bi féministes yi ñëw défendre jigéen bi jox ko droit mu mën a yuuxu mën a wax tey jii nii bu ñu doolee jigéen bi féministes yi ñëw ay guerre bi mu mën a am courage mën a dénoncer c'est ça qu'on parle quand on de féminisme pour aider les femmes jox leen li nga xam ni moom moo di droit mais kantaane jigéen bi noonu non waroo mën a tarbiwu sa jëkkër parce que sorte d'esclavage la alors là non loolu pensée blanc yi la de ce fait boo xoolee tey jii nii li nga xam moom moo di dans le monde occidental on reconnaît plus la femme on reconnaît plus l'homme parce que rôle yi dañu inversé wu wala yi dafa réer si benn kër bu fekkee déterminé wuñu li nga xam ni moom moo di rôle yi mariage boobu mënul avancer y aura problème des problèmes des querelles désaccords yooyu nuñ ko mën a résoudre y aura plus de solution moo tax tey jii nii jigéen pour nga mën a téye sa foyer comme ni nga wax c'est une sorte de thérapie il faut nga soumettre ak li nga xam ne moom si jëkkër góor yi tamit ils abusent des jox la benn droit nga ëppal ci comme droit polygamie droit la mais c'est pas un devoir ça pas dire que ni tey jii nii mën nga wo mën nga droit takk quatre femmes ça veut dire par force da ngay takk quatre femmes sans pour autant réfléchir parce que am nga ci droit. ça veut pas dire que ni la femme elle est soumise que ça veut dire que da nga koy comme nga ñibbi si nga gis ni añ bi neexu la nga gis ni kaani du wugoo ko mu def ko si li nga xam moo di bool bi nga kaj yi bi là ça devient plus nga xam ne moom moo di soumission mais ça devient de l' esclavage maanaam pour nga mën a départage li nga xam ne moom moo di soumission ak esclavage mooy bu rombee li nga xam ne moom moo di ligne bu rouge bi ligne bu rouge bi bu ko rombee rek loolu sa devient extrême maanaam dafa dépasser li nga xam moom di limite bi là on parle plus li nga xam moom moo di soumission une femme soumise à le droit de parler une femme soumise a le droit de conseiller man toujours dit ni dëkk bu avancé c'est grâce à la femme dëkk bu yàqoo c'est grâce à la femme parce que la femme moom mooy conditionner l'homme l'homme moo gën a yomb ñu conditionner ko ci monde bi d'habitude damay dégg benn genre stigmatisation wala benn genre cliché bu ñu wax ni lu jigéen def rek góor moo ko def non lu góor def rek jigéen moo ko def la en fait loolu mooy vraie réalité bi lu góor def jigéen moo ko def la yenn comportement yi en si biir fo si foyer jigéen moo koy def loo góor kon ça veut dire que ni pour delluwaat si li nga xam ne moom moo di soumission mooy accepteel góor bi ni moom moom mooy góor yow nga jël li nga xam moom moo di sa rôlu jigéen la mooy soumission mooy respecter l'homme que tu as devant devant toi mu delloo la ko nga aimer l'homme devant toi mu delloo la ko et je répète toujours jigéen bu fekkee amul intérêt maanaam mbëggeel amu ci respecté wu la xaalis amu si parce qu'il y a des personnes qui se fait yoo xam ne dañuy def sub mais foofu noonu aussi tamit si affaire xaalis bi loolu du soumission parce que tu le fais pas par amour tu le fais pas par respect tu le fais par l'ar pour def pour xaalis laa c'est une autre chose là on l'appelle prostitution kon de ce fait man conseil bi may jox jigéen yi mooy at loo leen mën a nekk féministe at loo leen bëgg am li nga xam moom moo di kàddu devant votre mari su fekkee ba ngeen benn vie bu stable bu fekkee ba ngeen benn couple bu neex bu fekkee mën ngeen ba ngeen ay doom yu barkeel il faut vous soumettre à l'homme parce que c'est la culture africaine et les religions qui l'ont dit parce que tey jii nii boo ko deful rek tu tu vas contrer li nga xam ni moom moo di religion yi ak culture bi nga xam moom moo ñu comme d'habitude ni mu waxee c'est pas que blanc bi wax rek loolu moo am wala c'est que noir bi wax rek moom moo am mais chacun doit améliorer li nga xam ni moom moo di style de vie bi nga xam ni moom nga yaroo moom lañ la éduquer le moment où tu ngay def transhumance jóge si li nga xam ni moom moo di. Euh, culture bi nga yaroo bi ñu la juddoo nga bëgg dem si beneen culture jàmbur emprunté ko boobu ngay gën a comprendre ni yaa ngi te doo ko tey su boobaa si ngay ñëw boo ñëwee di wax tu deviens arrogant tu tu forces les choses mooy maanaam nekkatul lenn lu naturel kon jigéen ñi bu leen nangu góor yi di abuser seeni droit de soumission mooy maanaam bi nga leen di jox canaliser leen góor yi jox leen limite respecter leen. mais ayez toujours votre mot à dire mais nag mot à dire ça pas dire tey jii góor bi su la waxee nga sentir ni yow jigéen nga comme bëggu la fo non duma ko def parce que aussi tamit am naa décision si kër gi non il faut communiquer le dernier mot à la kuliyaali reste toujours pour l'homme parce que si dëkk bi nga nekk patriarcat moo fa nekk mënoo indi Sénégal def ko matriarcat patriarcat moo fa nekk il faut respecter li nga xam ni moom moo di hiérarchie il faut respecter li nga xam ne moom moo di droit yi ak titres yi ñu fay joxe c'est ça la soumission en tout cas loolu moo nekk li nga xam moom moo di vidéo bi prochain vidéo bi nga xam ni moom laa ñëwee mooy maanaam lan moo tax jigéen ñi di trahir góor yi infidélité des femmes lan moo tax prochaine vidéo King West la woon a génn West Show let's go nañ ko tëgg after coole yaa oh, aya si matadi kasaramara awaga si matadi kasaramara oh, aya si